combatteur bi ndeysaan ñaari ancien lañ du ñu ay ancien ndax ba léegi ñu ngi ci mais ñaari vétéran la ñuy wax ci booy yi ndeysaan Mamady Ndiaye Babou Yaga refe nene na yo njota kam foof le nude pira batida looge ndeysaan fii ci Fimela lay xewee le 4 février 2024 pira batida Rewɓe ndeɗena yo jooɗa kam fof fennude hande pira bandidaloge wawaw mamadi diay babou yaga jagar joot busana kan kaña gañaɗo ɗu baboge wa jira sale o koor fammanona kono yimɓer gañan ñax on ɗu baboge jonne yaya e jonne jogom mbena en jolle jogoɓɓe ta koni jañan ñaa agare togo fana abdou sañ agare togo fana souley sañ agare togo fana ma toujours a fimla ale ndax nam ndax nam de bo kina anda ñagar fay njol bu sana waaw waaw doomu sowal ak doomu campement borom nangaan wala mbin jàpp wala le 4 février 2024 ici à Fimela premier la soirée entre Gandar et Boussana. Et round d'observation, mesdames et messieurs, vu que nous suivez ici euh, sur euh, les antennes de Benefal TV, nous vous saluons. Et s'il vous plaît, pouvez vous abonner et activer la cloche de notification. Et vous pouvez partager les liens pour beaucoup plus d'abonnements. Merci les bonnes compréhensions Allez aussi, vont le combat. Noël Boussana, Nyangar Faye, Nyangar qui est en face de nous, et Noël Boussana qui nous est par derrière. Nyangar Faye à l'attaque. Boussana en observation. des na ci nous langue ci kanam ci anglais

voilà ndeysaan jàngar i coɗoɗen rek allah euh, tan comme tiga yeɗa jay gan jowan fogaɓe immo fogaɓe tella oxe an me te ref karim sene wala xa refna xadi sar meke i mbeɗ paax donc délégation fane fogaɓe a ɓeyi i ngaƴa den rek de a njasnoor fo nuun allah tiga a yenga jerejef assalamu alaikum mbolo faye jangar jangar ha lol bagna ino en gilwa nun nakon nun pati mongol nun ino en jabam no gona fusi mongol ya jam ni sale ro ko fienne en ya mo jalo fienne jam min ya rabbi mo jalo jam jam ya ko fienne en hey jol bu sana plaqué nako paris dakar waaw waaw dola ma fa ay ja ci jak jilas boy bour boy bour mo ñu won ginaaw Dieguy Djilass moo jàkkaarloo El Hadj Ndiaye Thiatou Ande jàll na ci kaw Ngane Diofane ay gën jëm foofu la dugg El Hadj Ndiaye Thiatou Ande Jurgum Poplar Elan Garcha Toyda Asuna Gan Lufa Chicken Kilas Boy Buro Weto Chicken Kilas Dia Nangge Bu Boy Bur Chicken Kilas Bur Adruan Chicken Kilas Agun Chicken Kilas Sakusa Elan Garcha Toyda Asuna Gan Lufa Chicken Kilas Boy Buro Weto Nisan Chicken Kilas Boy Buro Thank you. waaw loolu bisa Elhadj Ndiaye génne na Gare Dioffane Djilass Boy Mbour ñu ngi ci kawam waaw waaw Djilass Boy Mbour merci beaucoup yaa merci beaucoup kon voilà comme des fois lu lay ñu rek programme Sangomar IBF pour njëkk rek en tant que team donc képp loolu bi sant ko ne ilo ko bëgg fooy del o kin jóge nag du donc ilo kontaan naa noonu tool jubmaa noonu remercier noonu aussi parce que refee forcé to a i ganal lay ko noonu aussi kadu yóbbali la boo jege jafe-jafe fa léegi kon nuuna ibe vraiment ɓe gidma nuun ni gon sanga mbaat remercier a nuun to ñanana nuun o kiino kiin rek ni ka yoɓnooxa rooga gatanom taaga xewal fana and naye xana kawe jotoom to te ref ka namal kam merci beaucoup i ɓaat o ngiro mboolo faye jombul keke um ley ɓaato ley ci jiijak boy nda ke kentan do doomu jila ak do doomu mi lay da sanawar nder mum fa ibe bu mum leyum kedul le tani bugum motal ibe na bolla dal leka kedi sabana ibe ko kedi sallala ay di jiijak jilas ay do bu jilas wame eh, eh. wame di jiijak jilas neena khalis bi neena gaay tatul ko Siaka Fall Ngagne Sène waaw waaw nee naa leen Ceen Siaka Fall tamam ñalla tama lamba so ale tamam ñalla tama lamba so te dama ñilat bu sa dofen bo xada la ko ale bo xada la ko bise de sam cey way ki so sa way ba ko ale tamam ñalla tama lamba so te dama ñilat bu sa dofen bo xada la ko bise de cey way cek cek gama dan ce na hoto jafala a karancina oho

ale pirke samdornero yenge papa pre bat futɓe mbadidu wena lamda souleyman Babu Yaga mu ngi dox ci kaw Ndiol bu Sana Hey Ndiol waaw waaw waaw waaw ay Ndiol Ndiol mag kenn du ko daanee nii waaye Ndiol bu soxla daan naa ale bele soobe bele nandele ndeysaan ndeysaan ñëpp foofu la leen kati Touba koye cey waay leen kati Touba ko koye ale ale mele sofe mele nanen wala kula soose mele nanen jël bu sama amama bu yaga waaw waaw ñoom 100 pour cent Bour Goussana Ama Fa a Babou Yaka ane sakuna je pakase je sajo kono to doki sirbe ene be na pisa ah sako wege makase sako dise dalan bos ko ko dal dal do sako wege

El Hadj Ndiaye. Lele saku iperu eke. Saku iperu ake eke. Thank you. san El Hadj Ndiaye mooy bu defee nga seet Caaka Faal a ko El Hadj Ndiaye Caaka Ayda mooy bu raak raak nga seet jëlaat tey Thank you. xale bi daw na de waaye damay romb wala lu sëb alas abonné abonné El Hadj Ndiaye daan na Cheikh Thiatou Aïda Ngagne ay ca jijal jilas conugal waaw ay ca arbitre bi na Papo ak Paul Mbane eh Paul Mbane dama koy jox ci kawam waaw. Sosox Sosox waay waay waay waay Modou Faye la sa bopp waa mais waa mais lii lii du dëgg waay lii du bëre kese waaye lii du dëgg waay waaye lii du dëgg waay.

irachonugal on qirare ndaja fakana jigel jilas matula simbi simbi oy doole doxul jàmm simbi na ko ay doole doole doxul jàmm waaw waaw waaw waaw ay waay jijang doole doxul jàmm ndeysaan ngànceen mbay tele ji ndeysaan Elhadj Ndiaye dafa may ki nga xam ne moom mooy jël bu sono Thank you. na bebo kala kadi sen bay gele ge o way ko Major Busana, Jakarta Kepulauan Sosok, Delegate Neto. lu xew ngañ ko dal wala ngañ ko kiyal ba nga ci nga jëm so so ni Ngathie na fii Ngathie nee ko jogale Sosokh nee na kaw Sosokh nee naa doy xaar waaw waaw Djijak ne ba ndong yaayum sa diiro coow ngir jaga seemoor ay ca Djijak waaw Le premier demi-finale pour lourd la fii le 4 février 2024 Digante Djidjak Boudjilas. ak Papa Ngane Sosokh ndeysaan fay le génie. Djidjak Djilas Bourou Bisson Anour. Bourou Ousmane Boga Djidjak Djilas Sosok. Tidiak moo ñëwoon gannaaw noonu ndeysaan doomu jilaas sata cosante sax maak sata ngawul seen cupan si de mat pangool Tidiak Tidiak sol na ko naax arbitre waay eh arbitre eh bi xool ko Tidiak Tidiak Tidiak li final lan la waay Memang menunggu negara Jadi baju berkutai Kurang menolak Bukan menunggu negara Jadi baju berkutai Waaw Ouzin voilà arbitre arbitre di jóg Encouragement pour Boy Soso combat daan na Jijak. Soso daan na ko. Jijak jommi na. Modou Faye la sëni bi. demi-finale poids lourd baa ngi noonu. diggante Ndiol bu Sarak Ngathie. aja abdou patron ko ko do so ko gana na ko ci bakay dina waja ni abdou patron ko ko do so ko lay gana na ko ci bakay dina waja tàgg ba cey tool la joolaa bañ na eey waay mbaa dinañ amati dara waay kañ daan na ko kañ seen daan na ko ay ca final poids lourd baa ngi noonu diggante ngañ seen ak Papa Soso di final double offense la eh, ba eh, vite fait vite fait vite fait vite fait Sossokh jombi na Sossokh jombi na ñamaate yi da sare a ki ndeeno ndeysaan di leen di bëgg ngeen amateur yi ndeysaan di kontaan ci a leen ndax nam ndax nam te boo kii ne ana waaw waaw